ñii ñoo tax tarkindaa bi di rey boppam oh. ay waay ma nekk mbër tey ma sañoon nekk mbër Lansar <laughs> sant sëñ Bamba maa ngi nii rek yàlla sant yàlla sant yàlla amiin amiin amiin barke Sëñ Tuuba lool lool yàlla bi moo woote bu ñëwee rek day neex wax ji du bëri 2019 ko léegi ñoo ngi wax fii lay leeree léegi nii dans quelques instants yàlla ñu yàlla may ndam. lan la say day daw mais mis nañ ko ba màgget première mbappatu Siteu barki sëñ Bamba ba tey nii lañ koy defee première waxuma la arrêté première mbapat ba tey nii lañ koy defee yàlla ñu yàlla may ndam.

Euh, ñu ngi jéem a xool euh, Siteu li ñu ko autorisé pour mu dugg ak lim bi mu bëgg a dugal moo bëri moo tax léegi nañ déglu takk der yi ak mag père Max Mbargane lan la ñuy wax. voilà. voilà surplus bi lañ doon wax takk der yi instant yi nii ci loolu lañ nekk actuellement di ko lijjanti. mais surprise bi ñu bind verbal bi. da ngeen dem ci commandement wu CNG. parce que CNG moo géré loolu de. GDL mu wax fii 15 personnes la. voilà bu ñu seen jéem a ñu. fay baa ngi nii. ñu seen jéem a ñu. lii fay baa ngi nii. ñu seen jéem a ñu. mais Babacar ñu ne Babacar ñu ngi nii. ñu am parti la. c'est un combat. mais entraîneur. lutteur. oui ça fait combien. 17 17. non problème bu dee di jàpp. comme Fatick arrière am kaay. voilà léegi. xaw nañoo xaw nañu xaw nañu déggoo léegi nañoo dugg benn par benn ñu compter bu mu am souple wala nee na taxawal léegi.

mais qui organise pour le il y a des droits. qui organise pour le mais dal ko ba même rek. maa ngi lay mu doon kilifa. waaw bu yàq lamb bu non yàquma. si mbas même rek. problème bi mooy non déglu même rek même rek. non su ma nee déglu ma ma ngay déglu. waaw ma ngay déglu. waaw maa ngi lay déglu. mais ñoo ngi fi ñëw. waaw ak sa ñaari gars yi. waaw kon sa ñaari ñu bàyyi ñu gudd ñu yées ñu def ko. waaw maa ngi lay déglu ba léegi. mais dañoo yor bàcc. même rek ci effectif bi lañ bokk. même rek waaw mais sëñ bi waaw bëri bu tudd waa mais mbër mi bu dee combat bu mag li nga xam ne moo farataal di am. effectif dañ la may lu ci ëpp surplus lay doon dañ la koy dagg. loolu nangu nañ ko bañu ñu ñu ko suñu reliquat. mais du ñëw ci bunt bi ngeen ne ñoom duñu dugg. max mais bàyyi leen ñu dugg ci porte bi. non léegi Umar. loolu mooy problème xam nga loo gis. waaw am na yoon. waaw mais ñun duñu wax fii. waaw la ñu doon waaw soo demee fay. GSMC après su ñëwee ñu jël seen service bi mais ñun dañu ne carrément 15 personnes li koy entraîné. président bi la ah, seen accusé ko dolli na ma 3 parties bu 18 te loolu waxu leen ko maanaam kooku bind leen ko sur plus kooku bind leen ko sur plus kooku bind leen ko kooku rek bind leen ko sur plus waaw. mi ngi dugg si ñu ngi nekk ci seen. caru caru mystique. li mooy caru déem si déem. waaw caru caru déem la. mooy si déem. dafay am ay dëkk. ay dëkk moom la ñuy wax waaw ci daal na mel ni. andi na bu mel ni andi na dee. béjjën bi. waaw ko teel gars yi nag tey sama seen yaram tàng na de. dégg naa li mu def. li mu def. dëgg la. taxaw da ngay régler fii di régler fële. da may wax man maay responsable. léegi dama régler les seet leer na fekk wax la loolu loolu déglu lan moo des léegi li ci des des na ay personnes yoo xam ne wa andok na fete mboro dañ ci am bagage yoy dañ ñu ñu jaxani nga taw ñu non non non ba ba ñëw nañ waa jon waa yaru démb baa ngi noonu ànd ak dëkk bi ñu ngi ko di teg ci seen ñu leen di jaay la quoi gay da ngay wax ñee bu ñu tegee bagage yi si diggi géew ñu ñëw jëlaat leen ruñu dafa am combat kan Diop dafa am combat daan ah daan que ñoom noonu eh eh ay daan ami intime de succès est doon na mi kenn moytul gaaw moytul saako bi jon waar la diisee.

Bulan kau pergi, lah. Kameraman, kameraman. Kameraman. ndeysaan ñu ngi lal percal bi jaata ngi noonu di lal percal bi Satou Cora wala téye na ko yal na ko ba noppi quelle entrée mystique yi ñoo yor taa ngi noonu ngeen gis Gaay ni yaatu waay. Gaay mooy yaatu boog gaay ëpp leen. Yéeme na lool. Yeah, sure. jambar jambar Bala bala si tangi Thank you. ana bagaas Thank you. waaw waaw kon noonu dama lay gën a leer la rek. maa fay ñaata ñu mooy wax tey yow wax dëgg yow. voilà. Thank you. maa fay leen yaakaar si ngeen mën a dégg nga mën ñaari perkaal lañ leen benn bi dañ ko laaj ci suuf benn bi ñu def benn baax cey mystique cey mystique ah cey mystique Babe, sikima ona bana. Ahora la base vamos a poco con él. Está la pila más. Ya ahí no le nunca hizo ti. Vendo pudieron no. Aló. waaw ka la jël arrivé bi arrivé arrivé si dëgg mu ne nekk xëy mu ngi dugg fee waaw ma xam soxla woo leen ko non yéen déggu ma ko de ma jël sama téléphone aw ma connexion waaw dama mën a téye appareil Thank you. ay sarager ni sel mu a affaire boy tarkin

waaw waaw li la ñu wax laar waaw waaw tànk bi lay jiital de gisoo ne tànk droite bi rek lay jiital. ngay jiitu ba ci biir.